borom jaaxal daagul te way yàlla la tane Mbàkke Cheikh Ibra Faal ma xalu yoonu Mbàkke borom jaaxal daagul te way yàlla la tane Mbàkke mboolem kuy dégg rajo bi rek dafa am nu dab te muy ndigal loo xam ne lii ndigal yi gën ci ndigal yi nu di koy jëfal sunu kilifa di Cheikh Babacar Mbacke jaaxal moom Serigne Balla Coro ak maam Boussa Ndiaye boo déggee loolu nag waa këram ñoo teew fii yal na leen yàlla dafal cet te yokku leen te yokku seeni maqaam ak seeni daraja te dafa leen wërsëgu yaatu mu ne ma liggéeyal bi loolu mooy lan xam ngeen ne bu ngeen ma wax de wax naa ci kenn Serigne mbay Mbacke jaaxal nag ci laay wax ci ndigalu Cheikh Abdourahmane Mbacke ak rakam bés bi le 14 mars la fukki fan ak ñeent cee jaaxal. bis bi na xam ngeen ni naka jekk seen jili mii moo yor programme màggal gi yëpp ànd kook ay magam Serigne Darou ak ñu ngi ko bokkal ñëpp soxna nday ba ci soxna abi muy bàjjen soxna May Surang boo ko tuddee tudd nga ñëpp. boo tuddee sëñ Abdourahmane ba ci Baye caat Thiat nga ñëpp kon du jër lim kon nag man damay wax di turu taalibe yi rek di woo adduna bi yëpp ak waa diaspora bi waa Italie ni man baay Mbaye Baye Fall Italie ba fa nekk taalibe sëñ Habib ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo Italie di woo diaspora bi di woo waa Mali waa waa waa waa Amérique ak waa dëkk bi yëpp kon ñun loolu lañ ci barkeeloo di woo suñu mbokk taalibe yi ñu bokkal suñu bay Mbacke borom jaaxal yëpp bàyyiwuñu fenn ñen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa Touba Nayrul Maram yoonu Daaru Rahman bokki taalib fa ne ñëpp ca njiit la sëñ Mbàkke ma fa nekkal sëñ Balla Coro ne fa ak sëñ Abdou Samad Mbàkke moom sëñ Moodu Busa yéen waa yoonu Daaru Rahman gépp mi ngi leen di woo ci màggalug sëriñ Bay Mbàkke ca Touba Jaaxal di fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab wii nuy dëgmal kon mbokk ak xarit ak wóllëre ñëpp ñi ngi leen fay woo yéen waa bawal yéen ñëpp ñi ngi leen di woo la commencé ca garaasu mbuso tuguj ndondal ngawul ñëpp woo nañ leen nañ nañ nañ nañ nañ teel a ñëw nañu daa ñëwee ñu fas yi ko ni defe liggéeye kàttanug sëñ Tuubaa gërëm Seex Rafal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñuy seetaan ñi ngi wax ci turu seeti Serigne mbay Mbacke borom jaaxal di leen yëgal màggal gi ñu amal Touba jaaxal la 14 mars di ci woo mbokk yëpp taalibe yëpp di ci ro di ci woo rawatina seeti fu sëti Serigne Touba yëpp ñu ngi leen ciy woo rawatina mm, sëti Serigne Balla Thioré yi ak sëti si Abdourahmane Mbacke mbari yi ñu ngi leen ci woo bu baax a baax di ci soññ bu baax a baax njabo di ci soññ bu baax a baax waa daayira sati Serigne mbay Mbacke borom jaaxal yi ci liggéey ba nañ ko daan defee ñu def ko noonu ñu ngi ciy woo ñëpp di leen ci séntu bu baax a baax ñu taxawaay ñu taxaw ci nañ ko daan taxawe ni ko Serigne ji li waxee amuñu ku dut sëñ Mbay Mbàkke borom jaaxal ñëpp. ñu Abdourahmane moo am bu baax di fàttali ko di leen fàttali bisub sëriñ Mbay Mbàkke jaaxal bi ñu war a def samedi la 14 mars 2020 jaaxal sëñ Abdou nee na mi ngi leen ci mi ngi leen koy fàttali bu baax a baax mbokk yee julli yeeg mbokk taalibe yëpp képp ku wax asadu an laa ilaaha illallah wa asadu anna muhammadan rasulullah sëñ Abdou nee na mi ngi la koy yëgal ñi nga xam ne nag waa kër gi la nga xam ne taalibe sëñ Mbay Mbàkke jaaxal moom nee na mi ngi leen xamal ni leen loolu ndigal la ci yéen lépp lu ngeen jàpp na ngeen ko bàyyi ba bis boobu jàll ndax amuñu lu sëñ bay kon bisam bu ñëwee lépp lu jàpp nañ ko bàyyi ca taxaw ci bis bi ba mu jàll nee bokk na ci nga xam ne mi ngi leen koy yëgal ay kilifa yoo xam ne dafa dañoo amoon teg moom kóllëre mu di ci jiital siñ siñ siidi moom siñ abdul xaadir ak siñ amsa moom siñ abdul ahad ak siñ abib moom siñ fàllu ak siñ seex ahmadou mbàkke xalifa siñ am am ni mbàkke daaru salaam ak siñ abdul latif moom siñ mortala sëñ bi nee na mi ngi leen di bis bu baax di xam ne ñoo moom ñoo ko ñoo ko bokk di ci woo sëñ Mamour Mbacke gaawaan ak suñu tàkko suñu tàkko Mbacke ak suñ suñ Mbacke Anta ak waa kër suñu xawsu kan suñu kan ak waa kër suñu Thierno Diouf ak ak waa kër suñu Thierno kan ak waa kër ak waa kër suñu Mut Diouf ak waa Gàpp sëñ bi nee na ñoom xam na ne ñoom ñoo bokk si bi ak waa jàggal sëñ bi nee na moom it ñu ngi ñu ngi leen ci woo bu baax ak waa waa waa waa Njomba sëñ Mbay Jaañ ak waa kër gi ñëpp nee na mi ngi leen di woo ak waa kër Jaarnde ak waa kër sëñ Mbay Kan ak ak sëñ Alsaan sëñ waa kër Alaaji Moor Ngom ak sëñ Moor sëñ Moor sëñ Moor Ngom ak waa këram ñëpp ñu ngi leen ci woo ak waa kër sëñ Abdou Wade sëñ bi nee na ñoom ñëpp mu leen di woo ci bis bi di woo daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci senegal ak yi ne bitim réew ñu tàmbalee ko yu ne yu ne yu ne ci Dakar suñ góor a sàll Dakar ak suñu wuyee Camara suñ bi neen ñoom ñu ngi leen soññ di leen xam ne ñoom ñu soññ gone yi ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw nan daa taxawee ak waa Kaolack suñ Moustapha Sey ak suñ Cheikh Ngom ak waa Touba suñ Bàcc Mbub ak Ousmane Ndiaye ak Ndiouga Diouf suñ bi neen ñoom it ñan soññ nañ daa ñoom ñëpp ñu taxaw nan daa taxawee ak waa Thiès suñu Youssou Sey ak Malick Sey suñ bi neen ñoom it ñu soññ seen mbooloo ñoom ñëpp ñu teew nan daa teewee ak waa Bawal daam daam Dior ak Cheikh Gaawaan ak waa Ndar suñu abi bu lay ñoom moom it nee na mu soññam soñu ñoom ñëpp ak waa amerig Mbay Joxaane ak waa France suñu làmp njaay ak Italie Maguette Bey ak waa Canada suñ Mbay Ndiaye ak waa Mbar Mbàkke suñ Daam Seck suñ bi daa waa suñ Bàcc Mbub ak Ousmane Ndiaye ñoo ñoo ñoo ñu jiite daayira bi ak waa Gambie bi Moussa Ndiaye njaay na moom ñu ngi leen soñu bu baax waa Cameroun Alpha Diop bi daal nee na ci gàttal mu ngi woo képp ko di wax asadan laa ilaha illallah wastadaanu muhammad rasulullah nee na mi ngi lay wàcc bisib sëñ Mbay jaaxal bi wàllu programme bi nga xam ni mooy am ci bisib sëñ Mbay Mbàkke jaaxal bi la ci njëkk bu ñu xëyee huit heures incha allah danañ tàmbali njàngam alxuraan mi ak xasiida di ba ginnaaw tisbaar bu ñu julee tisbaar ba pare incha allah tàmbali dalal gan ñeeg yu demee noonu su ko defee bu ñu julee tàkkusaan incha allah ci la ñuy def waxtaan wi nga xam ni danañ ko def ci baas bi ñu ngi soññ ñëpp ñu génn ci baas bi incha allah sëñ Baye Niang mooy defa waxtaan wi ginnaaw tàkkusaan baggee incha allah bu soo defee buñ jullee gee ba noppi demaat ci biir buñ xewloo ba noppi ñëwaat ci programme guddi gi tàmbali njàng xasida yi sëñ Moustapha Sey bu Kawlax dana fa jàng ak sëñ Xaadim Diouf ak sëñ Xaadim Kebe ñoom ñooy taxawee guddi gi sëñ bàcc boobu nag moo yor microcentral bi moo yor wàllu programme bi képp ko xam ne nag bëgg nga cee barkeeloot incha allah bu buñ xamee sa tur danañ la programme. Ah, waaw ci turu soxna Ndeye Mbacke mu yor kàddu jigéen ñi ñuy soññee bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal la 14 mars ca jaaxal ci bisub sëñ Mbay Mbacke jaaxal suñ kilifa gu màgg googu ku baax ku sell ku tabe ku laabir waaw ñu koy waajal bis boobu ñu koy waajal nag ñu ngi ciy woo ñëpp mboolem jigéen ñi ñu ngi leen ciy woo daayira yi ci Touba daayira yi ni Dakar Mimbar Kaolack Saalum Bawal bàyyiwuñ kenn ñu ngi woo ñëpp ñu fas yéenee takku laxasaayu dem ca bis ba te def ko nañ ko daan defe maa ngi ci soññ taalibe yëpp daal. yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi ak ñaan yi Cheikh am Mouhamadul Mountakha mi fi xalifa général di murit di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ba lim yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéeyal ko dañ ànd kook moom di ci teg. waaye sëriñ Mbàkke mi nga xam ne moo fi xalifab sëriñ Balla Coro moom it di ko ñaanal li mu yéenee liggéeyal sëriñ Balla Coro lépp mu liggéeyal ko te ànd koog njabootuk sëriñ Balla Coro gépp di ci teg sëriñ Maam Balla Mbàkke xalifab sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom it di ko ñaanal li mu yéenee liggéeyal Cheikh Abdourahmane Mbàkke lépp mu liggéeyal ko te ànd koog moom di ci teg sëriñ Abdourahmane Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifab seriñ Mbay ak soxna Nday Mbàkke mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ñu nga xam ne ñooy kilifa kër gi di leen ñaanal ñoom it ni ma ñaanale woon ñooñee rek ñu bokk fi yàgg te wér ba liñ bi yéenee liggéeyal sëriñ Mbay lépp ñu liggéeyal ko ko dañu ànd ko ak ginnaaw loolu it dañoo am bis bu ñuy fàttaliku sunu waajur di sëriñ bay Mbàkke jaaxal comme ni ko ñu ko jiitu waxee rek muy la 14 mars ñu koy fàttalikoo ci jaaxal googee di ko fa defal bis boo xam ne dañ koy fàttaliku bis boobee nag ca fàttaliku ci woote bi ñu ngi ciy jiital ñin bokkal Serigne Touba te loolu buñ ko waxee mooy li tàmbulee ci njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha ba ci kër Serigne Mouhamadul Mourtada ak njabootuk Serigne maam Mor jaara ba ci kër ma Massamba ak sunu kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak sunu kër maam Serigne Daaru Assane Ndiaye ndax ñooñu ñoom ñoo ñoom ñoo bokk bis bi ak mboolem seexi Serigne Touba yëpp di ci jiitalit ay daaray kaamil yi ndax Serigne bi alxuraan da koo ñoroon lool moom Serigne Mbaye mu teel ko wattu teel koo kon bisam. ku koy defal dang ci jiital alxuraan moo taxit ñu ngi koy fàttali daaray kaamil jii nekk ci jumaa ji ak mboolem daaray kaamil joo xam ne nekk nga Touba ci Serigne Touba di ci teg daaray kaamil ja nekk njaareem ak daaray kaamil joo xam ne génn nga Touba te ci sëriñ Touba loolu daal lañ ci jiital ak mboolem lépp bépp jullit boo xam ne am na lu baax loo man jàng alxuraan jàng xasida astaghfirullah salaatu ala nabi ak loo man donte da nga koy wax ca olof ga ngay dégg it ñu ngi koy sàkku rek bis bii ñu ko tàmbalee ba bis ba ci di ñëw képp koo xam ne am nga lenn lu baax loo xam ne am nga ko man koo defal waaju baax ñu ngi koy sàkku ci sunu waajur woowee yàlla nañ ko yàlla fayal tañ def ko ay ati at ci barkeb sëriñ tubaa ginnaaw nuyoo boobu nag ak cant bi ak siyaara bi maa ngi koy jiital ci sunu kilifa sëriñ Serigne mun Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér kon nag. ginnaaw bu fàttalee suñu bopp noo ngi leen di fàttali suñu bis bii nga xam ne amuñu lenn lu ko gën a rëy ci nun ngir kat sëriñ Mbay moom moo nu boole ci sëriñ tuwaa te ku la boole ci sëriñ tuwaa kooku moom amook payam kon nag euh, noo ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ginnaaw boo xamee ni bii fàttali ko ñoo ngi ciy jiital soxna Nday mais nga xam ne mooy kilifaa kër gi ak sëriñ Abib mi nga xam ne moo ciy topp. ñoo ngi koy fàttali ñëpp kuñ bokkal sëñ bay rek ñoo ngi lay fàttali bis bii ndax amul lu gën a rey bis bii kan nag ñoo ngi koy fàttali lépp lu waaye jàppan na ko bàyyi te ñëw ndax kat lool rek lañ ko deseel kon nag jagam defal nan lu defal nanu lun mënalut suñu bopp kon li des muy fàttali ko kon loolee war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax a baax kon nag ñoo ngi koy fàttali suñu bopp di leen ko fàttali di ñaan nag ci barkeem nu fekkee ko te tal ko te wér bal yéene ji nga xam ne eh, taalibe yeeg ñëpp am nañ ko ci yéene joojee ñu mottali ko nu kawe suñ jort moom daal ginnaaw buñ soññee suñ bopp noo ngi leen di soññ ñu jàpp ko te xam ne amuñu lu ko gën a rëy kon nag noo ngi soññ ñëpp di séentu ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ñëw fekk nu ci jàmm ñu def ko ci jàmm delluwaat ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jaaxal daagul teeway yàlla la tane Mbàkke si Abdourahman Mbacke may xalifaam ak soxna Ndeye Mbacke mu baax may yaaram